naa uti pour def chantage mm-hmm. parce que jusque là la état lan la def mm-hmm. Tunkara may eggali s'il te état lan la def loo xamante ni yow jàpp ngeen ne mën na eh, avancer seen métier ak lan nga xamante ni ah, jàpp nga ne mënul moo <laughs> moo tax seen métier sooxe tey ah, parce que ñëw nii di dóor ci état rek aussi dafa en fait dafa ah, eh, am fii nag pause ah, ah, ah. am nañ gan eh, Abba nekkatul Sen TV fii la ne léegi. salaamaaleykum Abba dàq na waa grand frère ci loo ne. yaa ngi am jàmm. ñu ngi ziar baax sëñ bi. alhamdulilah rakk ji sama xarit bi. grand eh, frère Pape Sidi. mais korite jotagul. salaamaaleykum na ngeen def sëriñ da ngay laajte grand ci loo ne. <laughs> grand waaw dañoo ñëw rek comme euh, dañoo ñëw dugg ci <laughs> seen biir. kër gi kon léegi leer na waa Sen TV dàq nga leen yow. non te kër booy dugg da ngay jaar ci bunt <laughs> bi. buntu bi fan la bi fan la xam nga xam nga fii buntu bi <laughs> boo taxawee ci diggante ñaari kilifa yi xam ni fii buntu bi lii sax indiwu ma woon. <laughs> Euh. dama ñëw doon def si benn bande annonce pour wane leen ni le compte à rebours va va bientôt commencer. Euh. ici sur la 2STV ak Aba Stress waaye mënta woon ñàkk ma jaar. si kon da ñëw. damaa egsi naa ba pare. kon bien dañ laa dàq wala dégg nga Aba Seydou ñu ngi lay dalal jàmm. Aba dañ la dàq jàmm. liggéey ak jàmm. Ah. ngi ni kenn moomu ko télévision yi. kenn moomu ko dëgg la Aba no stress. Euh, bienvenue Pas Sidi. waaw ah. bàyyi jàmm. non je lui souhaite la bienvenue. on est bokk ak moom kër gi parce que suñu frère. waaye tamit waaye tamit moom bëgg naa ko tontu tamit. Eh di ko wax rek man duma ko ñu dàq. Eh. foofu laa yem. <laughs> macha allah Aba no stress euh, di ko delloo ñu ko parce que xam nga nag lan lañ bëgg nga indaale. no stress. no stress no na ñëw. parce que xam nga stress dafay raye. waaw yow nag indaale non. ayca pour wàllu leen ni stress comme day rayé dinaa leen jox anecdote. paa bi ak xale bi nekkoon suñu koñ. Ah. paa bi mooy imaamu koñ bi. waaw moo xale bi dañoo am problème problème bu yàgg. mënuñu koo régler ñëpp wax nañ ñu ne problème bi du régler mais comme imam bi ci weeru koor lañu nekk 5 heures du matin jot mu dugg ci biir boutique bi daje faa xale bi xale bi di jënd lu mu lekk. paa bi xool xale bi ñu xoolante lu yàgg paa bi di ko xool xale bi di ko xool mu ne ko boo naan pipe may salaatu <laughs> aja yaa ngeen jëf siyaar naa leen aja Moussa MP Kaay Moussa aja bëgg naa leen bu baax a baax a baax c'est ici sur la 2STV mm. mm. alors merci beaucoup ah on l'adore alors on était en train